Bay Sere toj na dëkk bi comme xanaa ne doomu nay Cheikh Abdou lugum lugum kay kay kay kay kay kay faam faam ça va yaa ngi ci roon man de dama bëggoon a seeti Sere sama wëllëre woowu yow bay Sere ñaari weer newul si dëkk bi hmm. nga ne da fay dem. waaw ah, wallaay kañ la dikk démb ci guddi. <laughs> xam nga lu ma la yëgal déedéet xaw ma ko sa tànk bi nga xam ne kon barmbaru maabo hmm. dox guddi dox bëccëg. Hmm. day dakk kër gi doo ko bougé maître yow. defe nga ko. hey léeg-léeg laa kafu ma de. bu ma la ñaanee nag. ma nangu. ban sëriñ la ci moom. yow <laughs> ma wax loo. Ah, ma dem nag bàyyi yow da kër gi doo ko génn de. te caaxaanu. caaxaanu ma bàyyi sere dafa am lu doo génn. doo ko bougé. ah nay faama nag bàyyi ma bàyyi sere day sama wëllëre. mel moo ñaaw dama ko namm doo gis suma ma lu neex doo gis yow lu ma def gisoo ko ndax Baye Sarène Baye Sarène mooy kan. sama nit la dama li am si yow sax amuma ko si yow. fii sama xarit kër gi doo ko génn tey. waaw nangu naa yow loo bëgg naa ko wuy si biir dama ci dama ci raxas bi. am jàmmaam dama ci raxas bi moom. dama toog xaar ba maa ñëw dama dem dama toog xaar ba maa ñëw. yow kay am jàmm. yaay sama sering naa ci xam dara ndey faa. Eh, yaa dem yaa ngi ñëw. waaye fi may fekk man mau, mau ngi jéeg pëng pëng jéegu ñay yaa ngi dem nag yaa ngi dikkaat kii na sama xol bi waay kenn mënu fay def dara bàyyi saret bàyyi saret bàyyi saret bàyyi saret bàyyi saret mel ni mooy sa jabar di nga xam ne lépp dëgg la tey waaw mais booy doom day si loo ne yaa am jàmm baa xool sa whatsapp xool sa whatsapp waaw envoyé naa la benn code waaw code de jéem koo gée naar bi da moom mooy loolu kenn mën koo jàpp waaw waaw booy yaa ngi sa gàlle nii ah waaw toogal mu xaar ma maa ngi ñëw te nga bu ñu joxantee daal ni rek nga ne mees maa nii di ñëw waaw xaar ma rek waa oh. de leen liggéey baaxut baay yow booy mën ngaa yor seen kër lii du liggéey li jàllut baay ah nay rafet dara nga sot doole dee ko daan waay kon mbaam mi ak réeroo lay indi ci réew mi quoi. rank baax na na takk rek yow. xam nga nag dañuy lii ay yére nag. takkal rek mbaam mi maa ngi ko jëli woon dama ko aaloon Mourou Mbacke Thiam moo yoroon mbaam mi nii. mbaam mi comme ab réception sa waay. waa rek. man nañ waaw baax na nii baax na nii walaab nga fii na nii. xoolal sërub jàmbur rek. léegi xam def. Hmm. nañ dàq mbaam mi ñu mi du borosu de ba ko joxee itam dama ko doon yor day borosu acca ni nga yax ba ne baaxul gi du ni de du ni damay wutuk lap ba bu ne kecc gis nga dañ na te nga fier ci sa baram yi moytu defal nank bayil am xat digënté lu mu gatt gatt dana mos ngon mom cheikh ni baax ya dana baax liñ bëgg nugu modu mbam wala dan waaw yaakaar naa ni dana baax moom kay bu fekkee de voilà léegi ne jox ma la kor kor kor kor babi ayah karena teh hari hari kebah kan iya gak iya, iya, keting pala fari ya jok me yapi am am dafa ndank kar kar kar simpal damba mi tay tay tay am gi day mag iya. kar kar ni la bëgg ni rek ak dal rek yow tamit ah baax na ba te nga arrière Cheikh sa wax ji waay xam waaw baax arrière xalam ak waxu aja arrière al daa yembari kat jaara ci mi teel ma yet bi balaa wadd yet bi kay yow dawal yaa koy téye emprunté nu muy téye ma sëg emprunté bu dugal bu dugal mooy dàq mbaam mi ñu ñu may ànd ko kees xoolal saaxaam nga du nga mbay mbay bu ko ak kay taxu leen nag ah li sama mbay an seen permis seen permis jox ko jox ko permis amo attends attends bu ko rajati bu ko rajati per waaw bu anu, rajati ana pen per mba mi lek ma ma ma ma ma ma wara bu ko rajati nga bu ko rajati ma bu ko rajati nga bu ko rajati ma bu ko rajati ma bu ko rajati ma waaw waaw yeen mba mi bir bi day daw ngeen di ko dawal Bal. Kaya jum kay. Bal, bal. Bal. Ah, ya. Mag la def. Ha? Tawul, tawul, tawul, tawul. Bu ko rajat yi. Bu ko rajat yi. Uy ma, uy ma. Mami. Ma nga jël jox ko mami. Yow sa yow am nga la fi. Attends, attends, attends.

Boursor. ya. ray nga nit. bu ko ràjjati ray nga. aywa bu ko ràjjati. naka mbaa mi lekk nelaw na. waaye séeréer dee na. ah. wuy bu ko ràjjati ray na ràjjati nga fi. wuy sama ndey. aywa waay. waay. wallaahi aywa. sap ku fi gën a jege. sappour 18. yee docteur Gaye. docteur Gaye. clinique magi mag xaaral sama eh sama waji mam xarit bu xess allo gay wa sa nugum nugum sul ka irsan la bay sarat la fi ben way bu ko ragati ragati xuma daan na eh docteur gay ku ne fofu ku nek ci ku nek magi mag bi rek na ñew bay ma dara waaye da ngay dee ma ñàkk xarit ñàkk sept mille sama sept mille yi ma yore noonu nelaw na nelaw na nelaw ah, mi da koy lekk bu ko mbaam bu demee sa wana wa daal koy puuf foofu mu nekk mu nekk mbaam mu lekk nit puuf nit mu jeex nelaw na <laughs> nelaw na ne nelaw na c'est mi waaye sëriñ c'est ko pikir. waaw sëriñ ñu pikir ah. xeex na ah alhamdulilah. la ilaha illa lii lan la. Ah? lii yan malaaka la malaaka lan la. Ah? du malaaka kan. ay waa ah? an suñu waa kër kan la nu kan la. waa daari bi la ñenoo taxaw lii lum loolu lu xew fii da ma ah lan la lu xew bu ràjjati la kuy kooku jugal jugal an saa ween daal mi ngi ni maa dund da nga xamoon lu xew ba leen ma dara lu ma lu xew yow kay daal daal la alam nasara lakk sa la lan la lii lum doon lu lu win yéegal nii yéegal di joor yéegal di joor Abdoulaye nga yéegal di joor lu ma dal lu ma dal yéegal di joor ñuy toog ci naa toog nii de lan la lu ma def da ngeen maa ramas. ramas suñu la. lan la da ngaa kiris. nga lay ramas oto ramas dana am lan yi. mbaam ma dana la fekk la seet. kon da ngaa nekk ci circonstance suñu toll. ma tëdd fii xaar nelaw yeewu leen boog bàyyi sa reer tooj dina dëkk